asalaamaaleykum mbokki presse bi <laughs> asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci ajjuma bi di am mbégte jàkkaarloowaat ak askanu senegaal waxtaan ak ñoom ci lenn rekk lu xew ci dëkk bi te lu ci bari concerné ñu ñun ñi damay doore sama waxtaan ci samay rakk samay xarit samay mbokk yi nga xam ne teg nañ leen loxo démb muy ay membre de ma garde rapprochée la ci Macky Sall jublu dafa tënku ci benn plan boo xam ne lu ñu lal la ci biir police ak gendarmerie Antoine Diome coordonné ko ñu ne faw rekk ñu fexe ba ñi wër Ousmane Sonko ñu fexe ba tasaare leen li muy njëkk a tekki mooy yemuñu ci ragal ma rekk ci politique waaye malgré li ñu yor yépp nag ci armée ak ci ngànnaay sama quelques éléments de sécurité yi daf leen jaaxal ñaareel biñ ci jublu mooy jàpp ni suñu defee loolu dina taxawal suñu doxalin ñun rawatina ci lii ñu door muy nemmeeku tuur mooy dem dajeek askanu senegal waxtaan ak ñoom ñetteel bi mooy xoqatal xoqatal nit ñi ba kenn dootul ñeme jege usmaan Sonko waaye may yëgal Macky Sall ni ci ñetti fànn yooyu yépp nag lajj na ni mu lajjee ci pexeel usmaan Sonko bi muy Macky ba tey jii lajj na ndax moom dafa xamul lan mooy sama sécurité sama sécurité ñii taxaw nii ñoo ci gën a néew ñii taxaw nii ñoo ci gën a néew te ñii taxaw nii xaalis bu ñuy ut taxu leen a ànd ak Ousmane Sonko waaye dañoo gëm projet bi ñu bokk bokk ci ni ci militant yëpp bokkee moo tax ku yaakaar ni mën nga leen a xoqatal ci ay jàpp yu ñàkk fayda da ngay sonal sa bopp ñaareel bi dama ne ñoom ñoo ci gën a tuuti ñun amuñu problème sécurité waaye li ñu xamul mooy man sama sécurité ay milliers milliers milliers de jeunes sénégalais la su ma woote woon léegi fii ay milliers milliers milliers jeunes sénégalais ñooy ñëw kon sama sécurité kenn mënu koo tas ñetteel bi mooy nemmeeku tuur bi mënuñu ci dara bu soobee yàlla sax semaine bi ñuy dugg ñu continuer ndax def nañ suñu premier décap département alhamdulilah dem seeti sénégalais yi waxtaan ak ñoom gis ci lu lu ëpp sax suñu yaakaar ci nit ñu dalalee ci ni ñu amee yaakaar ci ñun waaye it seeni njàmbat ci réew mi ak nattu yi nga xam ne Macky Sall teg na leen ko li xew nag démb ñëpp xam nañ ni provocation la te li ko andi mooy xam nañ ni li ñu yëkkati woon foog ni mën nañ cee pexeel Ousmane Sonko gis nañ ni loolu du mujj fenn fenn fenn fenn te dinaa ci ñëw bu si kaname ndax seen complot mois de mars 2021 la lajj moo tax barki dem ma ne Sénégalais bu leen génn buleen leen xuloo dem leen toog maa ngay dem uyu ji wax fa samay dëgg ñëw toogaak toog ak yéen ñu ànd def suñuy activité kon bi ñu xamee ni loolu du mujj fenn seen pexe yépp mooy nu ñuy def ba dossier bi jur yeneen dossier façon préva provocation bu ne dinañ ko def ci jamono yi pour am lu ñu génneewaat lu bokkul ak loolu bu fàtte nii mois de mars 2021 bañ may jàpp yu bëri la ñu génne woon lañ ma lañ ma bindaloon ci dossier bi mooy trouble à l'ordre public et appel à un regroupement non autorisé ñu génn ci loolu daldi bindaat appel à insurrection et xawma lan menace sur les institutions yooyu yëpp mi ngi ñu bind foofu parce que seen stratégie la mooy xam nañ ni bii du dem fenn il faut ñu fexe ba créer yi ca des bu leen fàtte ni tey procureur ci beneen complot dem na fexe ab dossier am dem ut ab revelam boo xam ne kenn xamul fu mu ko jëlee ne nag ak ku mu munti doon ku nekk ci gannaaw rebelle bi dinaa dal ci kawam. jàpp nañ suñuy gone tëj leen ne ay terroriste lañ tuddee leen force spéciale ay force spéciale su fi amoon gis nga Pastef su décidé woon yëkkati force spéciale Macky Sall jël na avion bu yàgg dem ñu tuddee leen force spéciale te dossier yooyu yëpp may tudd nag dinañu fexe ba am ñu ñu tiiñal waaye yokk ci benn x boo xam ne ñëpp xam nañ ni x boobu Ousmane sonk lañ ciy wër. kon ñi ngi ci pexe yoo xam ne dañuy lal yu bëri ne foo jaar nag dina am benn bu jàll ma dalal xelu Macky Sall benn du jàll benn ci ay pexem du jàll xale yi ñu jàpp nag ku jóge këram ànd ak sécurité am ak réew mi ni mu mel ak dëkk bi ni mu meloon démb dem uyu ji tribunal yéeg ak ñoom ba buntu juge ànd ak avocat am dugg ci bureau juge génn ñu ne ko sa sécurité kidnappé lañ leen yóbbu leen mbuur loolu ay méthode du pays yooyu la du méthode sax réew bu am démocratie te procureur mbuur waxul dëgg yàgg naa wax ni principal problème mu Sénégal mooy justice bis bu Sénégal di tàkk justice moo koy taal te principal bras politique Macky Sall tey mooy justice makisal amul dara mënul dara tële na ci ay adversaire am man de mënaluma dara ci kàttanu yàlla waaye toujours benn pexe la am te da koy jaarale ci justice te dinaa ci ñëwaat bu si kaname waaye ñi mu jàpp defuñu dara ñooñu man mii la ñu àndaloon parce que société ñu ñu ciblé mooy ñi gën a jege Ousmane Sonko ñi nga xam ne doo gis Ousmane Sonko mukk te gisoo leen ñaar ñi ci gannaaw ñaar ñi ci kanam ñooñu bi incident di am man la ñu àndaloon parce que ñooñu du ñu bàyyi seen leader dem di dàqanteek ay nit ak lu munti am ñun si suñuy liggéey ñooñu toujours ñoo may wër man waaye jàpp ay nit kidnappé leen yóbbu leen dugal leen ci benn néeg daa di woo des plaignants ne leen identifier leen ñii la ñu ne waaw ñii la mu jóg taxaw moom procureur nekk juge parce que dafa ne formellement identifié comme étant coupable procureur day poursuivre rek du moom mooy juger waaye loolu mooy justice Sénégal aujourd'hui toll nañ foo xam ne suñu mbokk magistrat yi nañu moyetu suñu waxee ñu génn di def ay déclaration di yooxu waaye moomu ñu dëkk bi de làqatu ci gannaaw justice damay def sama liggéey mu leer ni yoon lii la wax nga wàcc ko fi dem def leneen bis bu réew mu tàkkee doo ci mucc de nañu moyetu nañu moyetu di yee fitna parce que mami Macky Sall moomul réew mi te nañu jiital yàlla seen liggéey te bu soobee yàlla dinañ bàyyi xale yooyu parce que defuñu dara Pastef lan lañ ko fi deful song nañ suñu siège ak ay jaas yi gaañ ci ay xale ñu déposé plainte ñu denc plainte bi rey nañu suñu jigéen Mariama Sagna ba léegi teg nañ ko fële dóor nañu suñuy nit damm nañu ay loxo rey nañu suñuy ndaw yu bëree bëri bëri enquête sax ubbiwuñu ko barki démb dégg ngeen bi waa am Amnesty ñëwee fii exiger ñu def enquête waaye bis bu ne ñu ngi pexeel te waa dëkk bi yëpp laay waxal nag jiital ci kilifa yi. parce que kilifa yi waruñu di intervenir lu dul Macky Sall sukk na fii léegi Macky Sall dumawuñ ko ba mu sukk rek kenn du intervenir waaye moom mun na xëy di dóor nit ñi di duma nit ñi di def lu ko neex kenn du wax ci loola réew du doxee noonu nañu jiital dëgg ñun ñëpp lu ko mooy rek fi ñu jëm du baax am na lu xewoon ci réew mi ay kilifa sàkkuñu ñu ñaan ñu te jamono ñu ñëpp xam nañ ne pouvoir bi daanu woon na ñu nangul leen ko teg seen loxo ñu laaj ñu teg seen loxo lan mooy suñu jàmbat ñu teg ko seen loxo ba léegi dégguñu ci dara ci diggante gi waa ji dem na waajal boppam jënd ay ngànnaay waajal boobu ba léegi mu ngi dal ci kaw nit ñi waa ñun xanaa dañuy tënk suñu loxo bàyyi ki ñu jàkkaar lool nag moom ay loxom libre muy dóor nañu seetaat réew mi ndax nag lu ëpp tuuru de ba tax nag ñu wax ni bu soobee yàlla daañ leen bàyyi te wàññiwuñu dara ci suñu kaaraange ñun ndax ku gis li ma wër xam ni manqué wu ma sécurité dañuy perdre seen temps rek nee nañu seen opération boobu ñu ngi ko tuddee béy bu sonnee matt loolu mooy code bi biir police mooy nañ leen di provoquer di leen provoquer di leen provoquer saa yu ñu demee ba sës rek dinañu agir saa yu ñu agir rek ñu jàpp leen moo tax ñu dem ba ci ki jël koo xam ne président say liggéey Macky Sall la àndal mu jël ay ndawam ñun ñëw nañ ci dëkk waa dëkk bi yëpp génn teeru ñu comme niñ ko defee boobu moo newoon suñu dernière étape wala suñu avant dernière étape def nañu des dizaines de villages ci département de Mbour fu ñu dem askan wi yëpp génn teeru ñu ñu waxtaan ak ñoom ci dal ci réew mi génn dem suñu yoon dem ba foofu ñu préparer seen coup yow ay nit bu ñuy dajee di waxtaan sa yoon newu ci kay doxal sa soxla loo fay dem uti di saaga nit ñi ak di sànni xeer lan nga fay uti nit ñi dañuy def légitime défense boo leen attaqué te li ci ëpp ñoom ak dëkku ndaw ma dëkku ndaw dëkk ba la parce que dañ fa am militant te ñoo leen fa ëpp militant ndax ci ki ñun ñoo ko gagné ci élection législative yi di commune de Diass ñun ñoo ko gagné ci élection législative yi kon foo gañe ëpp ñu la fa ay nit ba dina fa song loolu mooyoon benn bi nga xam ne moom laa bëggoon ubbee ñaareel bi mooy li xewoon démb walla beneen bi xewoon démb te jur lii démb doyen des juges Maham Diallo woolu dama ma dem wuyu ji ndax ma fàttali ko man mosuma bañ a uyu ji ndax ku ragal mooy uyu mooy bañ a uyu ji waaye réew sax boo xam ne république la amul kenn koo xam ne mën nañ la woo nga ne du ma uyu ji ba ma njëkkee ne du ma uyu ji dañoo respecté wul woon sama droit ma ne du ma uyu si waaye bañ ko respecté donte wëlbati nañu mbir yi damaa jóg tranquillement sama kër le 3 mars ne maa ngi wuyu ji ñu saboté mbir ma parce que xamoon nañ ni su ma demee gàcce lañ ciy jëlee ñu saboote mbir mi waa man waa Sénégal lay waxal démb xëy naa dem yoon bi ma bëggoon jaar le trois mars ñu bañal ma ko yoon boobu laa jaar démb amul lu ci changé le trois mars dama génn sama kër génn cité kër góor gi jaar Mermoz ne damay génn corniche dem tribunal ndax mooy yoon bu gën a gaaw pour kuy dem tribunal à partir de sama kër ñu ne duma jaare noonu faw rek man ma jaar yoon bi ñu bëgg looloo indi woon coow 3 mars ak li ci tegu kon ñëpp xam nañ ko tooñ ndax suñu ma bàyyi woon le 3 mars heure bi dossier bi pare nañ ko bu yàgg dem bi ma xëyee sama kër même yoon bi laa jaar amul benn différence kon lu tere woon ñu bàyyi ma ma jaar yoon boobu le trois mars lan moo ko tere woon kon ñoom ñooy di yee fitna ñoom ñooy di andi ay problème man en tant que citoyen bu ñu ma woowee am naa jaar fu ma neex am naa droit jaar fu ma neex li am solo mooy suñ la nee midi na la fekk tribunal midi na la fekk tribunal waaye su ma neexee ma jóge Mbuur sax walla ma jóge Thiès di daagu di ñëw waaye midi lañ ma wax naa yegg tribunal midi naa yegg tribunal su ma nee damay jaar buntu université nañ ma bàyyi ma jaar buntu université su ma nee damay jaar centenaire nañ ma bàyyi ma jaar foofu parce que démocratie la ñu nekk te kenn notifié wu ma itinéraire ne ma fii nga war a jaare bu loolu weesoo nag dem nañu wuyu ci jàmm ni ma ko waxoon sénégalais yi ñibbisi ci jàmm fanaan suñu kër ci jàmm ndax nag nee naa leen dossier bii du ngeen ci musa a dégg tëj nañ ci Ousmane Sonko de du ngeen ko mës a dégg du ngeen mës a dégg dossier bi tere na Ousmane Sonko nekk président de la République incha allah te lu ma leen mës sa wax gis ngeen ko ba ñu demee wuyu ji doyen des juges ñetti laaj la ma laaj ñett wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la ma laaj gis nga interview bi su euh, audition bi su guddee maa ko guddal audition bi mënoon na durer 15 minutes audition bi mënoon na durer fukki minutes ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la ma laaj mu pare substitut procureur ne dafa am ay laajam ma ne ko duma tontu say laaj ndax parke boo xam ne ci complot la dëkk duma ko tontu te dinaa la wax fan ngeen complot yi naa la ci jox ay preuve mu lem ay bagaasam toog ca la ca pare kon interview munoon na yem foofu audience bi munoon na yem foofu man maa ko yokk maa ko guddal parce que it li ma waroon wax i fallait ñu bind ko ci dossier bi lan laa wax doyen des juges te dinaa tëjee nag ay laajam li ma ko wax mooy dossier bii lañ ma ci jiin dara amu ci ay kàcc neen la te yow doyen des juges yow bi ma inculpé boo amee ay preuve teg ko ci table bi parce que xam nga ak ak droit boo mën a jël muy droit canonique li ñuy wax droit wu diine diine chrétienne comme diine jullit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor kii ñu ki tuumaal mooy indi preuve waaye di ku ñu tiimal mooy indi preuve su ma duggoon ci biroom mu indi ay preuve teg ne lii de wane la da ngaa def liñ la tuumal kon wax ji jeex na bu yàgg waaye amul benn preuve benn benn preuve boo xam ne doyen des juges génne na ko walla procureur ne liñ la tuumal lii la amut du benn preuve du lu ñuy xool du lu ñuy dégg du lu ñu bind zéro preuve un dossier vide bu amee preuve na ko génne amul benn preuve lu dul déclaration plaignante bi génnewul preuve naa ci dellu nag benn preuve génnewu ko waaw ma ne ko nag bu ngeen amee ay preuve ana preuve yi parce que loolu day tax mbir mi gaaw dañu naan wàcc daanoo ci gën a gaaw man de su ma jiiñee nit dara bu ñu nee këtt ne jonn ma génne samay preuve teg ma ne ko nag comme amu leen benn preuve dossier bi vingt 2021 8 mars 2021 biñ may inculpé la ma bindoon ci dossier bi mooy li ñu wax yépp weddi naa ko xaw ma sax lu niroog loolu li ñu wax yépp weddi naa ko xaw ma lu niroog loolu waaye yow ma ci loolu de ma ne ko en plus de ça nag dossier bi ab complot la te complot bi ji ci nekk diw ak diw ak diw ak diw la kon dossier bi ñaari branche yooyu la dama bëgg Sénégalais yi déglu ma bu baax dama di kuñ doon jiiñ ba far tey man maa wëlbatiku di jiiñaate li ñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiiñ ba far man tey man maawal bitiku di leen jiiñ waaye sénégalais yi laa bëgg ñu déglu li may wax nii man mi ñu jiiñ ñoom indiwuñu benn firnde benn preuve ci liñ ma jiiñ man mi leen jiiñ dama indi ay preuve teg ko ci taabal bi lan laa leen jiiñ dama leen jiiñ ne complot la boo xam ne ñoom ñoo ko organiser su ma nee ñoom nag dinaa lim ay nit fii yoo xam ne ñoom ñëpp seen loxo dafa takk rëpp ci complot bi nee naa leen complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la République mu ngi ci daanaka moo ci ëpp sax ay ay agissement ki ko jàppale dëgg dëgg dëgg ci li mu doon def mooy commandant Abdou Mbeng tey defe naa colonel la waaye jamono jooju commandant la woon ka ca tegu te loxoom taq rip ci complot bi mooy général Moussa Fall nga xam ne tey moom lañu dénk lépp luy gendarmerie moo tax mbir mi jaral ko lu ne fi mu ne nii gendarme yi ne woon ci bàmmeel sax génne nañ leen soxla leen tenue Moussa Fall ñetteel bi di maître Gabisso maître euh, euh, fàtte naa tur bi waaye Gabi lañ koy woowee moom mooy juróomeel bi bokk ñu teg ci maître joor Diagne bi nga xam ne ca lañ ma wax soxna la ci Antoine Diome bu leen fàtte ni Antoine Diome it lu ne mu ngi koy daj ci mbir mi bañ na ba moo dem jël ay ay waa bip ne mooy mooy mooy mooy aar ndaw sax di ko rawale tey ma nga Saly gannaaw suba mu nga dakaar gannaaw suba mu nga fële ñu teg ci Mamadou Mamour jàlloo mi nga xam ne loxoom taq na ci rib waaye ñooñ ñëpp boo leen dajalee nag seen digganteeg Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge war a mënal lu ñëtu la te teg ko fi ma teg nag li ma wax mooy yàlla dafa def ñoom bi ñu commencé ba léegi lu ñu nas rek yàlla génne loo xam ne foogewuñ ko déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité am na élément yu bëri yoo xam ne nekk na ci déjà naa ci dellu si waaye yàlla dafa def bi coow li amee gendarmerie nationale ci njiitalu général Jean-Baptiste Tine comme coow li dafa bëri woon ba gendarmerie nationale jaxasoo ci mu am coow ci biir gendarme général jean batiste Tine bi nga xam ne moo woon haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire dafa santoon ñu def benn enquête interne pour leeral mbir mi bi ñu paree enquête interne boobu dafa yéet rap dafa dem jox rapport bi Macky dégg naa bi mu ko ko joxee Macky Sall daf ko ne j'espère que c'est la seule copie de ce rapport moo wax leen ni rapport boobu moo tax ñu dàq général Tine andi général Moussa Fall ndax fi mu bëggoon rapport bi dem fi ko Macky bëggoon a yóbbu général Tine qui un soldat digne dafa def liggéeyam correctement rapport bi dafa joxe benn procès verbal numéro 063 bar 4 bar HC bar CAB du 14 avril 2021, affaire Capitaine Touré, feuillet 1 à 18. ñaar ñi def enquête bi colonel Omar Diouf la ak colonel Crépin Arsène Sambou rapport boobu versé nañ ko ci dossier bi avec accusé de réception xam naa fooguñu woon ni yor nañu rapport boobu waaye fii Sénégal la tudd te patriotes yi ñu ngi fépp seen tappale yi ñu nekk du mucc ni mu amee woon ci certificat médical bi ñu doon nëpp nëppal noonu la amee ci rapport bi noonu la amee ci yeneen ak yeneen rapport bi lan la wax ci responsabilité Serigne Bassirou Gueye mooy sëriñ Bassirou Gueye bi mbir mi amee moom yitteem yépp mooy woon nañu fexe ba jàpp Ousmane Sonko ci saa si moo tax ma ne sénégal sénégalais yéen réglé ngeen dossier bi ba ñu bëggee def li ñuy def mars 2021 askan yëpp taxaw ne du fi am boobu la dossier bi jeexe parce que ñu ma tegoon loxo mars 2021 te tey jii ñuy toog ni di wax du ma fi nekk maa nga fële rëbës ñu jël seen temps dañuy def seen instruction parce que Serigne Bassirou Gueye li mu waxoon commandant Mbeng daf ko ne je sais qu'il dina ñëw waaye bu egsee rek Euh, téye leen ko en garde à vue après déféré ko ñu dóor ko mandat de loolu moo ne woon plan bi te bu ñu fexoon ba làq ma nag duma ma mën a taxaw fii di wax la ñu liggéey yépp pour leeral sénégalais du am kon foofu la ñu lajjee kon moom dafa dafa dafa dafa li tubaab naan obsédé dafa amoon yitte bu rëy a rëy ci ni muy def ba teg Ousmane loxo ci nu mu gën a gaawee moo tax dafa mujj di parax paraxe jàpp enquêteurs yi di leen def pression bi capitaine Touré paree rapport am dégg naa nag ñu naan capitaine Touré moom la àndal ak yu demee noonu wallaahi ak ajjuma bi ñu ne capitaine Touré benn yoon laa ko mës a gis mooy bi mu ñëwee jox ma sama convocation benn yoon laa ko mës a gis ci àdduna xamuma ko xamaanuma ko jëflantewuma ak moom. du démb du tey jii Sénégal nag ku am ngor am dignité rek ñu ne dafa am lu ne ci suuf waaye su doon loolu xam ngeen ni nguur lay àndal kon lii ko dal yëpp du ko dal nañu waxante dëgg mu def pression enquêteurs yi ne leen gaaw leen pare dossier bi bi ñu defee PV bi PV d'enquête yónnee ko ko lii mu ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbengue euh, commandant Mbengue ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam ñaar anam benn ñaari anam yu garaaw a garaaw garaaw bu ci njëkk mooy parti rapport yëpp parti rapport initial bi nga xam ne yëpp c'était à décharge pour man mooy parti rapport yi nga xam ne dafa doon fësal lii mënul am moom la ci PV gendarmerie moom la ñu def nii souligner ko en jaune ba pare ne parti retranchée dans le PV modifié du 9 mille 2011 et ayant fuité mooy parti PV bi nekk ci dossier bi nga xam ne Bassirou Gueye moom la dugal ci dossier bi fi nga xam ne enquêteurs yi commandant capi capitaine Touré ak capitaine Diouk fi ñu bind ne. am na loo xam ne mënul ànd ak dossier siif ndax ku ñuy siif yow yaay organiser siif bi programmer ko xool état bi ka nga nekkaloon ci biir nga ne ko génnal yow yaa ko ne génnal kenn newul ni génnal loolu tey na xel xel mënul nangu ni nit mun nañ ko siif ci anam gi ñaareel bi ku ne man dañ maa yónnee SMS boo xam ne mun na compromettre waa ji ñu ne la ana SMS bi nga ne leen effacé naa ko preuve boo xam ne mun na dugal nit ñu yónnee la ko nga ne effacé naa ko ñetteel bi ñi mu àndaloon ñu d'accord ni ñoom ay fani fan ñi ngi taxaw ci buntu institut bi di di géte di xaar Ousmane Sonko ñëw ak ñi ko fa jël si loolu yépp ñu Serigne Bassirou Gueye ne génne leen ko ci PV bi parce que baaxul day disculpe day wane ni lii mënul am procureur la République buy def loolu très très grave la parce que procureur de la république amul droit intervenir ci PV bi moom mooy le maître des poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme yu ñu ko dénk ñoo am autonomie parce que ñoom rek ñoo posé question ñoo dem jëli les ñoom rek ñoo war a mën a def seen PV kenn du modifier PV même procureur araam na ci moom mu modifier PV waaye sëñ Bassirou Gueye yemul ci loolu de. PV bi nga xam ne moom la enquêteurs yi def PV boobu moo nekk nii quat pages la quat pages ak quelque annexes parmi lesquelles certificat médical bi nga xam ne dàq na lépp ak audition yi loolu la woon Serigne Bassirou Gueye ne il faut ma charger dossier bi lan la def dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay foto yu bon gis ngeen foto yi foto yi ngeen gis nii dem jël ay jigéen yu simmeeku Serigne Bassirou Gueye de dem jël ay jigéen yu simmeeku daat koy dugal ci PV bi ne institut ba moom moo doon def annonce yu loolu faux la mais c'est extraordinaire PV gendarmerie bi wane na ni lii mosul bokk ci rapport bi waaye li gën a neex samay avocat dañu ne woon juge d'instruction bi na def réquisition ci police cybercriminalité xool ndax yii parce que am na ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax am na rapport ak institut ba bi réquisition yi génnee lu ñu wax amul benn rapport jegewul sax procureur buy def loolu pour charger quelque parce que lim ci doon ut te noonu lañ ko waxee ci PV bi noonu la ko capitaine Touré waxee ci témoignage am li mu doon ut mooy fexe ba ndaw see ñuy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne lu ne teg na ko ko tuuti mu rey doomam dañoo naroon assassiné doomam ñu fexe ba gëmloo nit ñi ni moom ab proxénète la da doon jaay ay jigéen mun a jaare foofu pour atteindre ma man lii dama ko wax le juge d'instruction daal koy génneel de preuves teg jox ko rapport bi nga xam ne lu du lu ñuy lam-lame moo tax ci fan yi fii ak lundi bu soobee yàlla dinaa déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême ak devant ligage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou ab criminel la tappaleem yi mu tappale moo jural Sénégal fukki bakkan ak ñeent ci ay complot yoo xam ne procureur bokk bokk na ci ñu ko sumb ñaareel bi mooy lu mu doon def yépp nag commandant Abdou Mbengue la ko doon defloo parce que bi enquête bi paree ba capitaine Touré ak capitaine Diouk di ko doon jàppale joxe commandant Mbengue da leen génne ci mbir mi verrouillé te moom nangu na ko ci PV gendarmerie bi enquête bi moom nangu na ni moom la bassiru Gueye ne changé mbir yi mu changé ko li ma leen di wax ni noir sur blanc la de moom nangu na loolu moo tax ma ne boole naa ko ci parce qu'il est complice parce que nit ak nu munti demee ak loo bëgg-bëgg carrière buñ la joxee ay instructions yoo xam ne dëppoowul ak yoon da nga ko war a bañ